taw bu bari bi ñu nemmeeku fii ci ndakaaru ci fan yi ñu jóge indi na ay jafe-jafe bu weesoo sax wàllum inondation yi mu mel ni ay njeexital itam am na ko ci yenn tali yi ñu ngi fii eh, ci virage bi nekk ci pont Cambérène bi rawatina eh, ci wëtu mausolée Seydina Issa Laye eh, fii nag booy xool mbir yi mu ngi commencé woon jéggi dayoo ndaxte lenn ci li nga xam ne moo bokk ci virage bi mu ngi commencé woon màbb ginnaaw ndox mi bëri bi fa tuuru ci fan yi ñu jóge mu nekk nag situation bu xaw a doy waar ndaxte VDN 3 bi bëri na ay oto yu fay faral di jaar rawatina ci wet bi nga xam ne foofu la ñu dem doxantu. li ñu fa nemmeeku nag mooy ndoxum taw bi ak li nga xam ne mooy eaux yi di jóge ci kër yi moo booloo dal di mabal benn pàcc ci li nga xam ne moo boobu le mu nekk nag situation bu xaw a doy waar boo xam ne mën na jur musiba booy xool sax ci bile zone amul lenn rek loo xam ne xeetu signalisation la ngir daal di gindi ñi nga xam ne ñoo fay faral di jaar wala bokk ay garde-fou bañ yeggee ca bërëb ba nag nemmeeku nañ fa ay yëngu-yëngu di ay xeetu tracteur yu fa nekkoon ngir sëkkaat euh, suuf si nga xam ne commencé woon na màbb donte agent yañ fa fekk nangu ñu wax seeni identité wala bokk ñan ñoo leen fa yebal ñu mën a jàpp ne rek waa Ageroute la ñu dénkoon chantier boobu euh, kon nag mbir yi fi mu toll nii euh, ba léegi seen loxo la nekk lañ fa nemmeeku xaw naa ni ab taf yëngal donte ñu ngi xamal ni fi mu toll nii chantier lañ toll mbir yi lu ci bëri noppeegul ñoom sax yooyu la agent ci ay kàddu yu ñu jot a wecceeg ak ñoom ñu ngi xamal ne mbir mi fañ ko bëgg a yóbbu yeggu fa maanaam yenn ci ay image wala vidéo yu commencé woon a daw ci internet bi fu mu yóbbu mbir mi amul boobu boobule dayoo. li ci mën ci am mooy euh, travaux yooyu jëmoon ci VDN 3 bi indi woon na coow euh, ci population waa Cambérène nga xam ne lenn ci ñoom ànduñu woon euh, ci boobule pont tiim mausolée bi waaye mu mel nii ci ab waxtaan bu am ci ñenn ci chef de village yi état wu Sénégal ak waa Ageroute tax na ba mbir mi commencé avancé travaux yi ñu ngi xamal ni fii fukki fan ak juróom ci weeru septembre bi ñu ne war naa tàmbalewaat loole sax di ay kàddu yu ministre bi ñu dénk wàllu woowu di maître Oumar Youm daal di dëggal Euh, chantier bi nag euh, bés bu noppee war na doon ab njëriñ ci population euh, banlieue dakaroise bi rawatina ñuy jóge côté Guédiawaye Pikine Yëmbal Malika wala Kër Massar